marché bi nekk ci rue 5 bu Médina soppi na sax xar kanam daan na gën a bëri ndawal ba ñu tëjee frontière yi dox suñu digganteeg réew Mali ba tey yàpp bi day gën a wàññeeku si bile bërëb. waa bërëb bi rek mais fora nag yi di wàcc ak xar yi suñu marché bi on faisait deux mille trois mille têtes par jour mais léegi on fait même pas cinq cent têtes avant crise du Mali bi c'était bon. kilo yàpp njëgi toogul benn place ñoo ngi koy weccee si diggante. juróom-ñetti téeméer jàpp juróom-ñeenti téeméer ci suñu koppar yenn saay sax jaaykat yi dañuy mujjee wàññi seen bénéfice ngir bañ a ñàkk seen i clients. da xaru 10 kilos boo ko calculé à 10 kilos 4 000 40 000 lay doon te yow doo ci am dara day metti quoi. waaw looloo tax ñuy obligé di yokk téeméer téeméer bi pour am frais ak dépense ak yooyu. yàpp tàmbali di jafe ñi ko mën di jënd bés bu nekk lim bi di gën di wàññeeku ndax ni njëg yi yokkoo. am na ñoo xam ne moom ñàkk pexe ba tey moo tax ñu koy jënd. waaw yokku na cher na trop surtout ci weeru koor bi donc euh, ñun père famille donc euh, métti na trop. Khadija Dramé soxna si boobu ba léegi mu ngi waxaale xarub la ma la bëgg jënd waaye liñ ko ko nar a jaayee daa bëri lool si gis-gisam. ah prix bi c'est un peu cher ah c'est cher sa laay wax parce li ma doon jëndee avant ak li ma ko jëndee tey c'est c'est pas moo tax. mais avant trente mille lañ ma ko doon jaayee mais fu mu toll tey quarante mille la ni yàpp bu yokkoo noonu it la laxas yokko bu njëkk laxas bu ndaw bi ñoo ngi ko doon jaayee ñaar fukki dërëm bu mag bi téeméeri dërëm léegi njëkk yi dem na ba si fanweer jàpp téeméer ak juróom fukk.